kenn du taxaw ci kanam suma ma bel di ma seedeel maanaam mbootu siru moo ma seedeel dudu bar amay moo tax baay dudu feesee baay soxna soxna takk naa dudu ma de mbër la dudu mariama dëgg la yau yow gàcce nga la ba yow yaa dëggal ya, bàyyi dudu bi tàggal wolo dudu mariama bëgg nañ la ñun de soppu nañ la ngir bàyyi dudu maale ku ko bëgg faw la dudu mariama boo ko xeebee man de duma la jàddal buñ dajee ma banque pour peñ fu ko door la Doudou Bara am may ku ko bañ man dootuma la jàttal te bu ñu dajee daal bu ñu dajee baatu naa la Doudou Mariam may mooy tëbb aari mooy géeji géeji bàyyi sirul xaqi moo de suñ bàyyi Doudou Bara am may moom moo yaatu gannaaw moo xamle te moo jëf ca mboon ma moo da waxee sirulaa yi Doudou Bara am may fii ku kaddu moo da wax ci yow maa lee ko jagleelu kun fa yakoon di de leer na waaye bim ñu fàttoo kare la ci heure duudu mariama mana ñoom ñett ñoo def feeñu waay bi ma baatiwul ku noos bi moo ibra faali moo bootu bar ama man a baatinu xam-xam ba mooy màlle moo ko baay xutbu zaman moo suñ baay duudu mariama man a baay màlle moo de baay baa ay duudoo ko firi woon ji moo ji baaga duudu baramaama ñëpp kele moote mulku mulku nine zero zero duudu mariama ay mën a gërëm bokk yi saa bee mooy mulku duudu waxoon na ne suma demee nguur gi day ñëw duudu mariama bon mi day feeñ fa ñu jëmmal ko mbootu ngooni ñoona leeri leeri duudu mariama su ngeen bëggee mbir mi gën a yokku yokku leen ci baay duudu te ngeen gërëm jëfam nañ gëm duudu Mariama duudu maa la ngeen moom nguur la mooy fal gaañi tey dundoo ji yéen sant leen ko duudu Mariama nañ leen sant yàlla mbir mi ñëw na yéen lekk leen te muñ te ngeen gërëm ka bayoon toolam duudu Mariama may baay duudu yaa bay tool bi dem nga gaa ñaa ngi nii fi teew lekk leen te gërëm boromam Duudu Mariam may fokk ngeen gërëm baay Duudu Malle fii kan defut fi dara lépp moo ko defar moo dem du may moo defar démbam moo defar tayam ëllëg it dafay ñëwaat bu jant fenkee faw mu soobaay Duudu Baraam may mën a jantab dundoo ji nag sona waaye fan lay fenkaati yàlla nañ teew ca ronam nangul par amay man de maa ngi ñaan buñ del si haatee ci tajali yaatab aaxir yàlla nañ sax di bëgg suñ baay par amay man a ruul aasam la man xam naa ne baay doodu maa ne boo di teeru gaañi loolu amay maa ngi gën yàlla ne bañ toogee joxoñ amay mën a bañ tëddee la ñu na ne baay kabiir sax teeru na ko foofa su en maa bala yor dudu mariama maa ko gis mu sol piise ma hamba naan ma xàmmee nga kii ma naan déedéet mu ne ma xoolal dudu mariama ca laa xool gis baay kabir ma ca man du doon ko càmmooyu moo di deqal ruuga anda bara amay kon am nañ lu dul jeex buñ faale lenn lu dul moomu ku am leneen demal doy na du du bari ku am leneen demal ñun doy moo ñu dexal bàyyi Ahmad Duudu Male mbokkam barama bi tey yow dundal rek yow waaye ah, du sëy dundal yow waaye eh? du sëy dundal dundal ay laa fa doole amul ami watuleen Duudu Baar amay ma ne piccam xaqu dërëm ku ko def maas hmm. mu damm say laa fa doole amul ami gëm leen Seydi Baar may mën a sagal sagal yabut biram paate moo di malaakaam ceeli càkka cooli baal amay mën a sagal sagal yabut biram paate moo di malaakaam ceeli mu ne ñun ñëpp ànd rek